wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi tedd yi ñuy seetaan ci jamono media <coughs> ci programme bi ñuy wax xidmatul euh, umma maa ngi leen di nuyu ci assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen ziyaara bu baax a baax wande itam di nuyu ñi nga xam ne ak ñun ci suñu channel bi nga xamne ne ngi koy jaarale jamono bi ci tiktok bi modi di amtv te mu al almansori tv ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way nak ma ragne ci ñi nga xam Musa ñu Musa seetaan foofule musa Jinne musa Cissé Moussa ngi lay nuyu bu baakha baax de la ziarah Muhammad eh, Muhammad lan la Muhammad wala du Muhammad waaw foog naa Muhammad la de maa ngi lay fay daal tur bi gis ma ko baax maam sin xam naa maam sin beauty waaw beauty bi daal laa ci mujj gis maa ngi koy nuyu moom itam di nuyu ñi seetaan ci live bi yëpp di leen ziyaara bu baax a baax mbokk yi suñu waxtaan bi mujj ñu ngi doon waxtaan ak yéen ci ñu ngi doon waxtaan ak yéen ci kii war a taxawal këru këru jullit jullit bi bëgg a samp kër ak jullit bu góor bi nga xam ne war naa tànn war naa am soxna jullit bu jigéen bi nga xam ne <clears throat> samp kër ndax kër góor ak jigéen a samp ñu doon commencé nag ci yi nga xam ne ususul ixtiyaar maanaam baas bi nga xam ne ci lañuy ñuy tànnee ñi toll woon ci wàllu taar moo wax ne taar baax na lool nit ki booy tànn nga tànn koo xam ne dana suur sa xol waaye sooy xool léegoo-léeg ñu bare bare bari leen di indil jafe-jafe mooy dañuy tànn ci taaru eh, zahir bi maanaam lii feeñ ci taar bi moom la ñuy tànnee te oto bodi bi kese taxut ñu ne oto sa oto lu bodi bu rafet rafet rafet rafet te machine amul te machine amul mar day taal moo tax Seydina wax ne nit su fekke amulo alal da nga ñak xaliss ñak goo so ñak lo nyak so ñak so yaram ñak nga tuti way so ñàkkee jikko ju rafet ñak nga lepp te lolu motax nit ki mané auto bo amé body bu rafet te amulo machine machine bu baax moy jikko ju baax jikko ju baax mu ngi feeñee ci xol bo xamné ak ak roox bo xamné ne defar nañ nit ko xamné yar nañ ba mu yaru léegoo léeg nag danga gis góor goo xam ne dafay wër daatu diin dafay wër borom diine te moom nekkul borom diine loolu it dana indi jafe-jafe ci góor goo xam ne daf naan man jigéen ju sérieux sérieux laay ut jigéen ju nangam jigéen ju nangam te moom ci boppam sàmm wante wut ak qualité yooyu muy tànn ci jigéen ji su ko defee su boobaa jigéen ji dafay mel ni jigéen nit kuñ génnee ci ci jàkka ji dem sëpp ko ci cooj ne ko bàyyil jëfi jàkka ji def jëfi cooj bi na ma mbokk eh, yi yëngu ci wàllu cooj damay joxe misaal parce que ñaar yi dañ ute la def ci ak la def ci cooj kenn mënu ko comparer bokkuñu lii différent bi mooy ñii danañ ne dañuy jaamu yàlla waaye boolewuñ ci yonent yàlla Muhammad ñii ne dañuy jaamu yàlla waaye yonent mooy seen direction kon xam nga ñaar ñooñu duñu bokk léegi noonu la mel moo tax yàlla ne at-tayyibatu lit-tayyibina gis nga alxabisaatu lil na moo tax mm-hmm. nit noo mën a mel boo dee góor noo mën a mel ci àdduna am na jigéen joo xam ne boo teeyee tey tànn boo sëyeeg moom tiga du toj bant du yëngu noo mën a mel sa jikko lum doy doy waar am na jigéen joo xam ne dana mën a nekk sa jabar dana la mën a gérer dana mën a sëyeeg yow sëy bi dana neex dara moo tax yàlla moo ko wax ci alxuraan ku ne am nga si jigéen ñu ne itam am nga jëkkër lool motax mag ñi daan tan ñu bari ci ñun nak tar lañu gëna yitté wu tar sama jabar dafa rafet jabaram dafa rafet tar da nay sank ñu bari bari bari ñu bari seen fay da fay da fay seen yalla da fay mujj nax saaye ci jigen ju rafet jigen ju rafet nax saayam jigen tam eh, mën na am tar tar bu sank ngëm yalla. dafa am benn benn benn boy boo arab ciru arab la dëkk mu tudd Muhammad maa ngi moom ñoo bokk turandoo mu tudd Muhammad Muhammad jàng na ba wàcc bay liggéey di am xaalis léegi nag dafay bëgg léegoo léeg holiday mu dem ci dëkk tubaab bi tànnoon na daan dem Amérique su demee Amérique lépp loo xam ne diineem aay na ko loolu la daan dafay dal jël nekk ci hôtel ba gën a bi gën a cher gën neex dal fa di dem nag di naaj club bi guddi waaw di naan sàngara di ànd ak soxna yi ko lewut benn bis Mouhamed jël avion Mouhamed nee na man seede naa ne ku sori sama borom la maanaam pour wax leen taar ni muy def góor taaru jigéen ni muy def góor muy xelaat nag ci tukkim googu ne dana bànneexu bu baax amerika neex na am na nangam am na nangam am na nangam bi mu àggee mu jël néeg ci hôtel bi mu bi nga xam ne fa la bëgg pour war faa dal ba noppalu ci guddi gi mu dal di dem ci fecceekaay bi nga xam ne fa lay dem xam naa ci ngeen koy wax xaw ma léegi nag Muhammad nattu bi muy nettali foofu la bi mu demee nee na bi mu demee ci night club boobu noonu ci biir euh, yàlla dogal mu gis fa benn jigéen boo xam ne nee na mosula gis ku nu mel waaye jigéen ji daf ko jox ne arab la maanaam Mohamed arab waaye dafa jàpp ne jigéen bi itam arab nee na gis naa lu ne dugg naa ci lu ne def naa waaye deug deug deug dal jigen ju nu mel dal ci tar ko na ngi nan sama Sanggar mangin ngi nangam gis Muhammad de muhammad Muhammad yàlla Mouhamad lañ ko tuddé xana li waron ay way jurom wacc nañ ah ci tour wi de wacc nañ mané ci tour wi de wacc nañ neena na ji dal di dagu jëm ci man muhammad neena mo melni ku tiig ken ju taru ak ni may xolé xana ci man. non pour moom mu ne sens bi mënu ko am parce que am na ñoo xam ne jàpp nañ ne lu rafet rek ci ñoom lu neex ci ñoom lu am am na ñoo xam ne seen àdduna nun la te jullit boo gisee yàlla indi atte yi am lu dagan am lu xaraam am luñu loo xam ne euh, dafa war waru la am lu ñu sib am lu ñu sopp yooyu pour yàlla tes jullit bi bu ngëm yàllaam toll day yéeg di wàcc ndax boo dajeeg lu xaraam te rafet nooy def boo dajeeg loo xaraam neex nooy def boo dajeeg loo xam ne bëgg nga ko te moomu loo ko nooy def parce que yàlla lan moo tax mu duñu aaye hmm? yàlla nee na pour ma seet ayukum ahsanu amalan rek waaw ba noppi nag borom xam-xam yi nee nañ ndekee lum ñu aaye rek lora nga ci nee na jigéen ji ñëw ba agsi ci man rek dal di bàyyi yaramam bi rek ci sama kaw nee ci biir night club bi dal ne ma hal anta arab yi làkk ma arab man foog moo ne fi gis sax ku làkk arab mu ne man wa ana kadalik man arab la wa maa iya al jinsiya al amérikiya arab la waaye dama am nationalité amérique te Amerika, man sax fi la juddoo man dal ma ngi fi mu laaj ma no tuddu ma ko man muhammad dal mu ne man tuddu yi rek la bañ Mouhamad neena degul len de Mouhamad neena jigen ji nga taram jeegina dayo neena turu suma turu rek la bañ te mom ciosanam arab ma lu waral lolou qultu limaada mu ne ma man christian nee na Muhammad nee jege woon naa ko waaye ma la di koy sori ci saasi te yëguma lu ma ko sori loo ndax nag saay-saay la maa ngi jeng waaye jullit laa jullit laa te bëgg naa yonentu bi te bëgg bëgguma kenn ku bañ yonentu gis nga lislaam mhm. mooy du tax ñu ne nit ki yéeféer mooy bàkkaar yi te boo toppee histoire ba ci indine bi da xam ne gis nga am na ci loo xam ne ci loxo yàlla la nekk wallahi am na loo xam nekku ci loxo nit mhm. nee na bànneex yu bari yu xaraam yeeg nangam nangam muur na sama xol bi wande ndaw si li wax wax nam ndax nee na bëggul dégg turu wax nee na tur wi gis ngeen ne am na lu ko Muhammad nee na ndaw si ak taaram taar bi nga xam ne mbarxan na sama xol mbarxan mooy eh, muur na sama maanaam dugg na ci sama xol duggeel goo xam ne muur na sama xel mhm. waaye nag lim ma wax soke na ma parce que mu ne bëggul a dégg turu Muhammad moom Muhammad daal la bañ ndax moom christian mais bi mu xamee ne li wax na xari na ma dafa fëlantal li ngay wax fëlantal dal di ceeñ topic léegi man ma daal ne ko ndax bëgg nga fecc ak man bëgg nga fecc mu ne ma waaw dina ñuy yéeg ci kaw pour fecc comme taaram bi yéem na biñ feccee lu yàgg dama ko wax ne ko ndax mën nañu ànd mën nañu ànd ñi dem fanaan sama néeg bi ci hôtel bi sama hôtel dégg leen de mbokk yi yal nañu yàlla suturaal Mohamed moo nettali boppam histoire yal nañu yàllay aar waaye yii xew mar mu ne ko ndax mën nañu ànd dem mën nga ànd ak man dem fanaani sama hôtel ñaata laa lay fay ñaata laa lay nangam nee na xale bi dal di ma eh, dal di may xëcc ci façon fem yoo xam ne ba ma mel ni ku màndi ba noppi mu bañ ne du dem maanaam xale bi daal charme ma ba nga xam ne xamatu man may def ni ñi maa ngi kuy mandi ba nopi mu bañ mu mu bañ mo wax wax mu bañ ni du dem neena ci ca sa deug la man katu yalla la waaye nak yéeféer duuma yéeféer weddiwuma yalla ci ëllëg sa ma traya chance ma demat ca même night club dajewaat fa ak moom trayat chance pour mu dem fanaan ak man ci sama hôtel nee na mu ne ma tey de li xale yi di wax yaay bañ waaye nag ci condition tey d'accord naa de waaye da nga condition mu ne ko man condition mu ne ko da ngay jël croix bi sama croix bi nga takk mu génne benn chaine chaîne bi mu ngi def seen kii seen cross yi nii yi def nii cross nga jël ko nga takk ko nee na mu dal di may mu dal di may indiwaat comme li ma doon fiil bi mu waxee ne dafa bañ turu Muhammad ma ne waaw dëgg la man ci sama xel ma ne man mooykatu yàlla la du ma julli euh, dëgg-dëgg gisuma sumay wayjur ay ay ay ay ay fan wax dëgg yàlla woowu ma leen téléphone wande daal jullit laakin muslim waaye nag mbëggeel gi ma bëgg taaram yàq na sama at nee na ma daal di xelaat su ma jëlut seen gi takk ko ndaw si du dem ma dal di jël seen nee na seen gi bi ma ko jëlee ba takk ko dama mel ni koo xam ne dañ ko nag dama mel ni koo xam ne ci kaso la ndaw si melni kumay ku nan kookali naan ma seet maa ngi la gëna bëgg ci bi nga takké sen ndaw hadiye bu for maa ngi la gëna sopp ci bi nga takké sen daf la japp sax yow sen croix bi daf la japp cross bi daf la japp mu ne ko nak bi tak ko te saa yooy janoog man sa yoy ñew pour métti na nga tak sen waxuma rek guddi gii ñu rek jamono bu ne ne neen mu d'accord ñu àndandoo ay guddi guddi nee guddi yoo xam ne guddi fitna la nee fitna la ndax neex na waaye fitna la ci man nee na li ko neexal ak li ko taaral mooy seytaane ko doon taal nee na biñ nekkee liñ war a nekk mu dem ñu àndaat nekk ca barab ba fecceekaay bis bii moom man kenn maa war a ñëw ma ñëw sama néeg ci hôtel bi nee na ma dugg ci sama toilette xool ci seetu bi ne man maa wor yàlla nii ngir nit ku rafet man maa wor yonentu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngir nit ku rafet man maa wor sama yaay sama papa ngir nit ku coy man neena mu xol setu bi gis sen gi cross bi di lang di belang bëlëng mu ne mustahil seytaane yow ya ma def ni te mbokk yi seytaane bi moy seytaanem waaw seytaane bi moy seytaanem gis nga motax tax léegoo nit ki taru jigen dina don su seytaane yenn say alal dina don su seytaane yenn say sa mer dina don sa seytaane yenn say sekat di dina dalam ini Ne setan sama hel, mana sama setan ini mau aja itu darah, li dulu wanya darah. Mhm, dulu wanya darah. Yo, video lo cuci sekolah dengan stok kesian direct waaye sa video ci video ci sa xol nak lama nag yep manam sama damiram sama damir mu ma koy panis mangi yek ay mit, mangi yek yek ay nakhar mhm. Amna amna nah, ci yo xamne bu ko nit de dund rek na am yaakar ci bopum Manam nit ko xamne ne na da nga wacc yoon waye so deme masalan so deme ndialo ba pare da ngay mere sa bop ngay jëppi sa bop da ngay sip sa bop di xalaat yalla sa diggante ak sa borom xalaat sa bàmmeel wa yow amal yaakaar sa bop da nga lu gaaw dawal dawal rek da nga rek incha allah daw bi nak moy tuup nga nan sangara ba nopp bi nga demee ba génn ci nga mere sa bop ki wut kay moy ki nga xam daf koy ko ba noppi di ci ci bàkku di tiitaru nan suñ guddiga nan naan ba may man mom musiba la mom bàkkaar boo xam ne borom day bàkkaar bi day weesu borom di ko bànneexoo oh oh oh, oh. <clears throat> mu ne man maa fàtte ne Muhammad laa tudd man maa fàtte ne sama yaay saa yu ma daan xëy school daf ma daan yee fajar ma julli julli fajar ca maa fàtte ne sama baay daf ma daan storil alquranul karim di ma jàng di ma jàngal farat di ma jàngal sunna tey man maa jënde loolu taaru jigéen ak bànneexu at fàtte naa sama yaay fàtte naa fàtte naa sama yaay mi nga xam ne fu mu toll daf ma daan ñaanal li ñuy wax alhidaaya waaw nee sama yaay fu ñu toll daf ma daan ñaanal alhidaaya alhidaaya mbokk yi moo di njub mhm. sama yaay fu tollu dafa daf ma daan ñaanal alhidaaya moo tax jaboot ju njaboot ne ci jamono ji war ngay ñaanal sa njaboot waaw toujours damay wax ne suñ jamono ji mën a yar taxut a yarule suñ jamono ji ma mën a yar taxut a yarule waaw yàlla dimbali la mooy tax mooy taxa sa njaboot yaru ji jamono moo tax bu la yàlla dénkee njaboot ci jamono ji del ñaan yàlla yàlla yaral sa njaboot googu la mm-hmm. ah, bu la yàlla dénkee njaboot ci jamono jii del ñaan yàlla yàlla yaral sa njaboot waaw waaw su du dool itam fa nga yaree la am ñoo xam ne fa la ñuy yàqe mm-hmm. ah, fa nga yare foofu la ñuy moo tax ñuy wax ne del jël ndox mu set ndox del jël ndox bu set li nak dang koy def ñetti fan pour sa njabot dila top ngay top yalla ñom itam ñuy top yalla ndax jamono bi jamono bi dafa doy war da ngay jang fatiha fatiha ñetti yoon fatiha ñetti yoon Fati fatiha bi eh, da ngay fexe bo ag rek fatiha boo bo bo jang bo àggee ci ihdina siraatal mustaqim dang koy repeat seventy times do ga a Fati, fatiha waaw léegi da ngay jël ndox nga tek ko ni ndox so tege ndox bi ni ci bol bu set nga jàng fatiha ba ci ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim nga repeat ko seven times yi nga àggali faatiha ëpp ko nga defaat ko àggali def repeat ko seventy àggali faatiha bi ëpp ko defaat ko nga ëpp ko tëj bool denc fexeel nag bu ko xale yi naana bu ca ëllëg sa nga defaat ko sa ëllëg ca nga defaat ko bi ñetti fan nga denc ko def mën nga ci yokk ndox bëri sa njaboot yëpp di ci naan soo bëggee ñu jub soo buggee ñu toppal la njaboot yëpp di ci naan juróom-ñaari fan inchaa allahu tabaraka wa taala yàlla mi yàlla mi yar yàlla mi jubbanti dana la jubbanteel sa njaboot dana la yaral sa njaboot waaw bu soobee suñ borom inchaa allahu tabaraka wa taala bu ko defee <coughs> waaw loolu euh, lenn la woon loo xam ne dañ leen ko doon may rek pour ngeen di ko defal njaboot gi su ngeen mënee nag ngeen di ci def def ndoxu zam-zam day gën a baax waaw ndoxu zam-zam ngeen di ko ci def dafay gën a baax rek du ci yàq dara léegi Muhammad nañ delluwaat histoire bala ñoo waxtu bi di jàmm Muhammad dund na loolu dal nag dem ñibbi seen dëkk bim ñibbee dafa dem sukk ci ron yaayam ne ko yaay baal ma dem suk ci ron bayam ne ko bay baal ndax tup ni dul ngay wax li nga def ci lislaam deh, man def naa deh def deh deh deh deh, yow jéggalul yalla sunu borom lolou lañ la sant yalla sunu borom tabaraka wa taala jéggalu ko dana la jéggal waaye bu fa nek nan li def li nangam nangam de tubal rek ah, am ci yeneen din nak yo xamne ñom yoyé yooyu soxla wa da ngay ngay da ngay wax li nga def <clears throat> da ngay dem ci kilifa ga nga wax li nga def waaye l'islam mom dafa bëgg nga sutural sa bop dina l'islam loolu la bëgg legi bimu agge mu dal di wax yaayam ne ko yaay yaayam ne ko ci dinem nak di gor manam Muhammad mokulon waaye dafa ñew ak mok di julli ci ci jakka ja ba noppi itam dinaa fi la guddi yaayam mi nettali li des ci histoire bi mu ne saa yu demee boori néeg Mouhamed guddi day dégg noyes ndeke Mouhamed mooy jàng alquranul karim Mouhamed mooy julli waaw Mouhamed daal mooy jàng alquranul karim noonu mooy julli Mouhamed Mouhamed nga loolu ndimbalal yàlla la Mouhamed mënoon na sànq Mouhamed mënoon na sànq Mouhamed mënoon naa doxee noonu yàqu ba ilaa yawmi waaye yàlla xetali na ko mane yàlla dimbali na ko yàggu dara ci fan yu néew yaayam dem di ko yee yaayam dem di ko yee fekk ko mu ngi sujjoot yaay ji woot woote woote woote déggu mu àgg yëngal ko rek ndekk Mouhamed wàcc na liggéey kon xam nga Mouhamed tuub na tuub gu yàlla nangu waaye li tax ma indi histoire bi mooy ñu bëri ci ñun ci ndaw ñi danga gis koo xam ne dafay génn ci lislaamam dem ci beneen diine ngir benn ngir benn jigéen ñu ci bari nag ñu ko def yàlla daf leen di dimbale ñu tuubaat delsiwaat ci lislaam ndax xam nga lislaam neexul la wecceeg lu dul lislaam ak loo ñàkk-ñàkk diine legi ñi ngi may wan ma waxtu bi liñ ci ci bari wu ma leen digoon la leen di andil moy ñaan gi nga xamné ne ko xamné amo ne liggéey am ngay kayit wala liggéey bi nga nek woor na la ne jappalé la way sa salari bi baaxul ci yow soy def ñaan gi inshallah da nga am liggéey bu baax même bu fekké ne bi nga nek gënut ci yow yalla dana la andil benen bu gën ci yow te do ci sonn soobe suñ borom kon jël leen seeni pen ngeen bind ñaan gi pour képp koo xam ne amoo liggéey moo xam nga ne ci biir réew moo xam nga nekk bitim réew jëlal dog yi nga di ko def da koy def thousand time subhanallahi almaliki alxayi alladi laa yamut subhanallahi almaliki alxayi alladi laa yamut subhanallahi almaliki alxayi alladi laa yamut moom ngay def thousand time da ngay ubbee fatiha بدف استغفر الله 100 صلاه على النبي 100 وا آه. سو كوي ديف ان شاء الله يالا دنا لا ورسغل دنا لا ورسغل ليغي فاس نانجي ني بو وخو فاتي ووت ساي يون ديفي بروغرام دنا نلن ماي بن دوغو نيان بو خامني نين كوي جيفانديكو ان شاء الله تبارك وتعالى يالنا يالا بولا ني ديفال توفيق تبارك يونت يالا محمد يين نيغا خامني ايتام يينا نيكون اك نون تي لايف آه، بي تي تيك توك بي نين لين دي سانت بو باخ باخ باخ تي اند بو رافيت بي غيسنا ني and ngeen ak ñun baax a baax a baax gis nañ comments yi dafa fekk ne mm, comme programme bi live la ci télé bi looloo tax mënuñoo jox lool yitte TikTok bi waaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal itam yal nañu yàlla boole defal tawfiq ci barke yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam seen mbokk la woon Mouhamadul Amin Kane Al yi ñu jox leen dig daje incha allah ba beneen semaine jërë geen jëf أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء